lu aju ci élection législative yi ñu xëcc fukki fan ak juróom-ñaar weeru novembre atum 2024 séddaleem carte électeur yi dinañu ko weyal ci biir réew mi yépp ba fukki fan ak juróom-benn weeru novembre atum 2024 bu ñu nee ëllëg la wote bi bu dee biti réew dina wéy ba fukki fan ak juróom-ñaar bésu wote bi. ñi mu yitteel mën nañu wéy di jëli seen carte électeur yi ci commission yi autorité administrative yi taxawal fukki fan ak ñaar weeru octobre atum 2024 ci préfecture yi sous préfecture yi mairie yi bu dee biti ci ambassade yi wala ci consulat yi carte yi nag dinañ ko joxe loxo ak loxo bépp aji woote ci kaw mu wane carte d'identité biométrique bu CDAO ak récépissé bi mu bindoo bu fekkee récépissé bi mu bindoo dafa réer aji wote bi dafay siifee benn déclaration ci ngo ci kanamu commission bi sama carte sama Avec ak euh, crédit ak surtout aussi li wax ci levier monétaire euh, bu ngeen demee axe 1 objectif stratégique numéro 3 dan ko jagleel intégralement le financement pour financement nak euh, wax ne mécanisme yi ndax euh, yaakaar naa ne ina ko wax ko ci taux d'intérêt système bancaire baa ci salle mon passé me permet de parler de cette euh, matière avec wax comme ni mu léré problème au Sénégal et lol la je jéem régler moy dispositif d'accompagnement yi dispositif d'accompagnement yi bari na mais li ñuy xaar ci dispositif yi amuñu ko ci mooy ne structure yi dano jaxasoo dama leen daan tooñ léegi-léegi sax li leen wax mosuma gis benn réunion boo xam ne bureau de mise à niveau fond FONGIP bokk nañ ko toog ci benn place bu nu toogee rek BCEAO leen woo donc effort yi nar a def mooy fexe ba dispositif de financement yi ñu recenser leen entièrement rationaliser leen mettre leen en synergie yaakaar naa ne kenn du réformer de dans ce pays là ni ma amone comme place acteur en matière de financement on ne va pas créer quelque chose d'autre jarul ñu yok dara nanu fexé gaay ku ci né liggéey ak sa morom ku ci né nek fa nga wara nek ndax mënuñu comprendre par exemple lu mel caisse de dépôt et consignation wala IPRES nangam naa nga xamné ñom c'est des ils ont de l'argent caisse de dépôt de l'argent à très bas coût IPRES de l'argent à long terme au lieu de ce qu'on les appelle des investisseurs institutionnels ñuy dem des ci habitat par exemple si on prend le cas de l'IPRES etc. Donc, le mécanisme de financement est dans le dispositif ce qu'on va faire l'INIDEF, moins faire des faire dispositif yi rationaliser et surtout profiter aussi du dispositif BCAODEF. Man, j'ai passé mon temps à dire aux gens que les il y a une centrale des bilans des entreprises financières, c'est-à-dire entreprises du Sénégal, a déclaré impôt, il y a une banque centrale, tu as une code de crédit. Quand tu cool, un problème. Donc, si utiliser le dispositif Bobo, utiliser également le dispositif de promotion du financement des PME, PMI, bi nga xamné votre conseil spécial moko dispositif bi paréna dem nañ ba defar un mécanisme de xamné c'est directement une relation entre la DPM et les banques synergie bi mo manqué fongible léegi aussi ñu gis ko muy dem bay def lo xamné ne du walam mom dafa war ñëw atténuer le risque de crédit euh, li ci des aussi moy bari na ay innovation yu wax ci document bi il faut que innovation yooyu ñu utiliser microfinance islamique décollé wul et pourtant banque islamique de développement jox nañu luy tolloog 63 milliards ba légui demul demul bu nu le crédit bay mi ngi fi ndax PME PMI informel mënuñu développer l'udul a à utiliser le crédit bail et dernier aspect bi ci financement bi moy ce qu'on appelle le bureau d'information sur le crédit tay Sénégal képp ku am facture ndox am na benn kuréel boo xam ne ne tey na yow ndax da nga fay facture ndox te ku dul fay facture ndox du fay bor c'est aussi simple que ça foofu lan dépare bané au lieu bu né nit ki yow da nga bëgg a mais xuma ndax da nga fay bor ku xamul ndax fa lay for bor mais 2018 la décidé ramasser ñi nga muy facture muy facture ndox muy am crédit mu nekk ci benn base koy bureau d'information sur le crédit avec une cotation tous les dispositifs sont là li ci des rek mooy nit ñi xam ne ne boo dee entreprise amal bilan da nga nekk ci central bilan bi mais pour nga nekk ci central bilan il faut nga fay l'impôt monsieur le président de la république ku dul fay l'impôt mënul nekk ci central des bilan te loolu day loo xam ne ne yomb na te yaakaar naa ne buñ ko defee ak plan d'action bi ñuy tëral le financement ne sera plus un problème

Euh, monsieur Kan, vu la page 21 document bi manga fa lan fa bind bind nañ fa carrément il faut que monnaie bi que maintenant un outil qui serve le développement je crois que bind nañ ko fi li ci am solo te premier ministre da koy wax président de la république bi nu ñëwé ñom yaakar nañ ci campagne bi bala ñoo démarrer lan né il est clair que le cadre africain bi na am dañ cey nek et il faut que les réformes se poursuivent donc c'est sur ça que ça se joue ñu poursuivre réforme yi jël français CFA bi ni mu mel ñu améliorer ko jël mécanisme de coopération yi ñu améliorer ko te loolu yaakaar naa ne ñi ciy liggéey ñi ngi liggéey mais bu fekkoon ne dañ ko dangaa bëggoon ñu bind ko ni nga ko xalaatee loolu débat dogmatique la boo xam fini ne fii ñu ci toll li ci am solo ñu xam que la monnaie sera prise en charge ci lu aju ci élection législative yi ñu xëcc fukki fan ak juróom-ñaar weeru novembre atum 2024 séddaleem carte électeur yi dinañu ko wéyal ci biir réew mi yépp ba fukki fan ak juróom benn weeru novembre atum 2024 bu ñu nee ëllëg la wote bi bu dee biti réew dina wey ba fukki fan ak juróom-ñaar bésu wote bi ñi mu yitteel mën nañu wéy di jëli seen carte électeur yi ci commission yi autorité administrative yi taxawal fukki fan ak ñaar weeru octobre atum 2024 ci préfecture yi sous préfecture yi mairie yi bu dee biti réew ci ambassade yi wala ci consulat yi carte yi nag dinañ ko joxe loxo ak loxo bépp aji ci kaw wane carte d'identité biométrique bu CDAO ak récépissé bi mu bindoo bu fekkee récépissé bi mu bindoo dafa réer aji wote bi dafay siife benn déclaration ci ngor ci kanamu commission bi sama carte sama baat fi nga xam ne fañ lañ leen jëmee ñu xam naka lañ fay demee mu nekk ci dëgg ci jub ak ci jubal jubanti bi mooy secteur privé ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ñu wax tey ku ci nekk dafa am secteur boo nekk wax nañu tànnari wax nañu ceeb am nañu wax euh, ci financement euh, ku ci nekk ci ñoom bi mu waxee dialogue public privé moom la insister parce que jubanti bi mooy gën a jox cër secteur privé pour que mu jël suñu développement wuute ak li nga xamante ne nii moom la état bi def ci 60 ans yi passé alors am na loo xamante ne nii bu ko setlo ci présentation bi sank dañ ko bind ci anglais muy doom to choose condamné à choisir moy tan, tan, tan, secteur yi nga xamanteni ni nii di jàppale. secteur bu nek dafa am problème bopam bi mu waxé ceeb expliquer na yan difficulté la fa am bi mu waxé tannery expliquer nañu ban difficulté lañ fa am kon dialogue public privé bi fay am solo.

Euh, nit ñi boo leen bëggee jàppale da nga leen di fekk ci lu ñu nekk nga jàppale leen ci li ñu nekk bu ko defee ñu li nga xam ne moom la ñuy ci lañ moom la ñu nekk ñu def ko ci anam yu gën sànq ci présentation bi wax nañ ko experts yi wax nañ ko mooy toutes les toutes les tous les services de l'État muy FONSIS muy FONGIP muy APIX DER ak ñeneen ak ñeneen nous décentraliser leen ñu dem ci gox yi ak bu ko ñu fekk nit ñi ci peut-être dernier troisième point bi nga ci euh, abi interpellé aussi ci question monnaie bon question monnaie bi euh, ministre secrétaire général tamit na euh, lu am solo la effectivement ñi ngi di ko bokk ak ay ay ay ay kuréel muy BCEAO euh, ak juróom-ñetti réew lañu ci biir euh, UEMOA BCEAO ñu bokk monnaie boobu euh, loo xamante ne ni dinañ ci gëstu bu ko defee réforme yi nga xamante ni moom lañ ci war a def pour mu mën a accompagner vision bi vision bi mën a réussir loolu tamit yaakaar naa ne jël nañu engagement boobu ci mi ngi ci mi ngi ci document bi alors jërëjëf monsieur merci Abdourahmane man du ma guddal ñu gërëm ñëpp di remercier aussi le modérateur nga xam ne permettre nañu ñu tënk mbir yi euh, li may wax lu gàtt la rek mooy. ci lu aju ci élection législative yi ñu xëcc fukki fan ak juróom-ñaar weeru novembre atum 2024 séddaleem carte électeur yi dinañu ko weyal ci biir réew mi yépp ba fukki fan ak juróom benn weeru novembre atum 2024 bu ñu nee ëllëg la wote bi bu dee biti réew dina wéy ba fukki fan ak juróom ñaar bésu wote bi ñi mu yitteel mën nañu wéy di jëli seen carte électeur yi ci commission yi autorité administrative yi taxawal fukki fan ak ñaar weeru octobre atum 2024 ci préfecture yi sous préfecture yi mairie yi bu dee réew ci ambassade yi wala ci consulat yi carte yi nag dinañ ko joxe loxo ak loxo bépp aji ci kaw mu wane carte d'identité biométrique bu CDAO ak récépissé bi mu bindoo bu fekkee récépissé bi mu bindoo dafa réer aji wote bi dafay siife benn déclaration ci ngor ci kanamu commission bi sama carte sama baat